ñuy dalal Madia Diop Sané coordonnateur mouvement Vision Citoyenne ñu leen nuyu di la dalal Madia Diop. maa ngi leen di nuyu di leen dalal yéen tamit di leen jox seen wàccuwaay di leen gërëm ci eh, interview bi. Madia Diop Sané ñu waxtaanee li nga xam ne moom mooy eh, décision de justice eh, ci mbiru Boffa Bayotte perpétuité le journaliste bi di René Capain Bassène ak Ampouy Bodian daal di am ci mbir mi tey justement ban commentaire nga ciy def. waaw di ko di trop di ne bett trop te jëlee ñu kaw parce que verdict bi moom wax dëgg yàlla kenn xaaru ko kenn xaaru ko ndax mun mënoo jàpp ñaari fukki nit ak juróom euh, nga bàyyi ñaar fukki nga bàyyi ñaar fukki nit ak ñaar yi presque ah euh, nga nga jàpp ci ñaar nga ne da nga leen di da nga leen di condamné seen giiru dund loolu dafa doy waar trop te ñu koy ñaawlu koy ñaawlu trop parce que ñun verdict bi ñun gëmuñu ko te duñ ko mus a gëm te di jàpp ni justice dina rectifier yow incha allah ci kaw lan si kaw bu ñu jogee ba dugal appel. te yéen xaaru leen woon lii. lii mosuñu koon xaar parce que ñun lu ñu mës a gëm mooy ñiy defuñu dara nañ leen ba te di ñaan ci loolu noonu gendarmerie mu continuer enquête pour ñu xam réellement ñan ñoo def mbir mii comprendre nga parce que famille ñi nga xamante ne ñoom la ñu rey ñoom soxla nañu dëgg mais ñun ak ñu bu gaa yi joxee verdict bi sax même ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoom ñoo ñu rey famille sax dañoo noppi parce que affaire da leen jaaxal parce que ñi dañoo jàpp defuñu dara ñii ñii def kay xëy na jàppaguñu leen mais ñii defuñu dara te loolu ñun yàgg nañ ko wax te dañ koy wax ba léegi benn bi mooy dafa di xëy na lii yàlla moo ko bind si seen jël lii moo naroon am am na ba pare nañ ci jéem a taxaw ñun ñëpp crise bi ñun lu ñuy ne ñun dañ ci juddoo màggee ci ba léegi mënta jeex te ñu ngi def suñuy effort yëpp pour lii jeex parce que lii jëmalewul Casamance kanam lu bëri la yàgg si Casamance lu bëree bëree yàgg ci Casamance mais ñuy wax ni René moom moom ak Amor Ampuy moom mën nañ ci tirer ay conclusions yu leer mooy lan Omar Ampuy moom daa taxaw ne man damaa bokk ci comité euh, kii bi woyu fippu Casamance yi mais bokk ci loolu du délit ñun mosu ñu xam ne loolu délit la nga ne fii laa bokk loolu dama yaakaar ni du délit te ñoom ci aile politique bi la wax moom ci la bokk moom moom dafa bokk ci ñi nga ñoom ñooy dox jàmm entre ñoom ak ak ak état du Sénégal mais kooku noonu boo leen ko jàppalewul félicité ko ci démarche yi mu nekk war leen koo jàpp jiñ ko lu mel nii tëj ko René Capain moom journaliste bi nga xamante ne ay bindom xëy na ñoo dugal parce que René quoi que l'on dise bind kat bu mag la ci mbirum Casamance lu mu ci bind lu ne boo gëstoo ba ci biir loo ci gis loolu rek dégg la donc mu nekk li nga xamante ne il était gênant lu ñuy wax rek il était gênant il était gênant parce que nit ñi xam nañ ko bind. boo waxee dara moom daf koy dem vérifier à la source gis ni du dëgg donc loolu tamit bokk na ci li nga xamante ñun pour ñun loolu moo tax loolu moo ko soobee li yëpp te di jàpp ni ñii ñu jàpp ni defuñu dara dañ leen war a bàyyi ñu ñibbi seen i kër parce que jàpp doomu adama bi xamante ni ñun ñoom parce que ñun yàgg nañu wax defuñu dara tey dëgg bi jox nañu munoo jàpp ñii ñëpp nga ne ñoom ñëw ko toggandoo lekkandoo ko ba pare nga ne léegi ñii ñëpp bay naa leen yéen ñaar laay jàpp ba pare lii nii bettuñu bettuñu xam nga la moo tax bettuñu mais dañoo yaakaaroon ni justice bi dina ci doon rectifié wu bettuñu parce que premier propos yi bu ñu leen jàppee gars dañoo wax ni jàpp nañu cerveau massacre boofa bi hmm. jàpp nañ cerveau yi kon ça dafa mel ni affaire yi dañ ko togg dafa mel ni dañ ko togg depuis Dakar ni dañuy dem gendarmerie di ñëw jàpp gars yi Dakar la jóge dañuy dem nii la ñu war a jàpp point barre loolu la loolu la ba pare dem bu demee ba ba ñoom ñi wax acte de torture ñu dugg Euh, euh, euh, juge bi ñëw mu sandi loolu dàq loolu fële nee ne torture musul am leneen musul am non mais c'est bizarre dans ce pays là. Mhm. c'est bizarre kon ça veut ñëpp ñu ngi en sursis. ba mhm. ça veut dire fii dëkk bi dinañ la jàpp toroxal la nga dem si justice justice dinañ la def ñu la dara. mais loolu c'est grave. dëgg la c'est très grave. te ñun amuñu benn yaakaar bu dul justice Sénégal bi. suñu justice bi moom mooy suñu yaakaar ndax dañuy gëm ni dëkk ba nga xamante ne lépp bu doxul bu justice bi doxee rek xamal ni lépp dox na. Mhm. mais justice bi bu jengee nag dina doy waar. d'accord Madja yéen ngeen bokk ci société civile bi nga xam ne yéen a doon jàppale famille le eh, di eh, détenu yi euh, ngeen yëglu woon tamit ndax tey mën nañoo xaar gannaaw décision de justice bi yéen it benn contre-attaque bi ngeen xam ne eh, di ngeen ko def ci wàllum justice maanaam appel wala leneen. mais mais bien sûr dafa defe naa depuis li nga xamante ne yoo xam nga ne lii ala kulli yàlla mun na nekk erreur justice la da ngay dugal appel ñu yaakaar ni justice bu boobaa cour d' appel bi incha allah dina def liggéeyam parce que euh, lu ñu gis mooy affaire bi cour d' appel loolu réeréewul ni mbir na leneen lu nekk nga xamante ne ala kulli yàlla xamoon nañu justice bi verdict danañ ko delloowaat ko d' appel. Hmm. te loolu ñun réeréewuñu mbir bu soobee yàlla cour d' appel. Hmm. cour d' appel ba mu leer. Hmm. jàngar ko jàngat ko xool ko liñati ko dina xam ne ñi deful dara dina leen bàyyi mais ci loolu noonu ñun du ñu yem ci loolu rek. Mhm. dañuy wax ki nga xamante ne moom mooy suñu njiitu réew. boole njaboote ñu ñu ñëpp nga xamante ne bu mu ñëwee ba léegi xa nemmeekoon nañu dal ci biir Casamance. Mhm. te moom mu bokk li nga xamante ne waral na ko bokk ni si ñu ko waral nga mun a voyager fu nekk nekk si jàmm nga mun a tëdd sa kër nekk si jàmm ñu ñaan ni président de la république nga xamante ne moom moo tegoon jéego yooyu noonu ñaan nañ ko moom mi nga xam moom moo njaboote ñu mu taxaw si dossier bi ba ñii nii ñi mën leen bàyyi ñu ñibbi seen i kër ndax ñëpp xam nañ def ñu dara démb boo gisee climat bi biir euh, euh, euh, comment on biir tribunal bi rek même ñi nga xamante ne ñoom la ñu reyoon seen i njaboot bu ñu tëjee nii ñee à vie ñoom ñëpp dañoo téye seen gémmiñ ñun ñu bëri si ñoom dañoo waaru parce que kenn xaaruloon verdict bu mel nii dañuy wax ni verdict bi nag ñu nañu jàpp ni c'est verdict bi nga xamante ne dafa ëpp dafa exagéré parce que mënoo jàpp ay doomu adama yu bëri nga nga bàyyi ñëpp nga jàpp si ñaar nga ne ñen la ñooñu da nga leen di sag fetal te ñoom euh, en matière criminelle c'est des preuves nañu génneel preuve yi lépp la ñu waxoon ko ci preuve avocat yi faxas nañ ko faxas bi nga xamante ne ba xoolee da ngay xam ne lii xel war na koo nangu ni lii du faxas ko ba wane ni wax dëgg yàlla li yaram sax dafa mel ni suukar moo dugal ci ndox rek nu muy seeyee noonu la avocat yi euh, ñi nga xamante ni ñoom lañ def ñoom la seen avocat yi dindee lépp li nga xamante ne teg nañ ko comme accusation en guise de soutien ngeen waxoon ne da ngeen di amal ay manifestation lu ci mel ay fu ngeen ci toll li nga xamante ma ne li nga xamante ne Elisa mm. euh, yoonu Sénégal may nañu ko mooy loi bi may nañu ko muy ay marche muy ay conférence de presse duñu xëy si di si joxe duñ ko def fu mu nee nii sax li ma lay wax mooy gën nañu sax pour dem ci yeneen kilifa pour waxtaan ci affaire bi nii pour ñoom ñëpp lu ci man ñu dox ko li ku ci mën a jot président de la république tamit wax ko ndax justice dafa war a tënku ci yoon justice dafa war a tënku ci les faits mais justice bu demee ba muy rendre ay verdict yi nga xam ne boo xoolee bu baax te mel ni ay affaire complaisance la dafa doy waar te di wax ni ñu bàyyi tamit affaire bi nga xamante ne lu ndaw ñu ne diw rebelle la lii diw rebelle la diw rebelle la mhm. loolu du jëmale dëkk bi kanam Sénégal dafa soxla dal te ñun ci dal la ñuy dox mhm. nañu soxla dal ñun ñuy juddoo ci ci xeex bi xam nañu ne xeex amul benn njëriñ xam nañu ay waxu waaso amul benn njëriñ donc nañu bàyyi yi nga xamante ne day dem bay niroo waxu waaso wala waxu xeet loolu amul benn njëriñ nañu jàpp ni Sénégal benn dëkk la ñun ñëpp ko bokk ay question ethniciste ñun bokk ñu si sax parce que ñun ñuy jàngale philosophie xam nañ ne il n'existe qu'une seule chose c'est l'être humain point barre les questions d'ordre ethnique racial affaire yooyu amul benn njëriñ parce que les races et les ci un faux débat. Euh, Madia Diop Sané justement njiitu réew mi euh, fas yéene woon ñëw euh, Sédhiou ak Kolda ci dans le cadre benn tournée waaye mu jëntal ba dañ ko annulé ba li ni mel muy ñetteeli yoon ci diir bu gàtt muy programmé tournée en Casamance ñu di ko dàq jamono ji nga xam ne doomam ya nekk ca côté boobu. am na ci ñu koy xaar lu bëri. xam nga bu ñuy wax ministre président de la république euh, day def tournée économique ñun ñëpp xam nañ ci tournée économique bi daf ci boolaale tournée politique. Mhm. parce que xam nga Sénégal mënuñoo réeree mbir ni président de la république day nekk day nekk tamit chef de parti. donc fépp fu mu dem dañ koy gis ni muy def ay débauchage mooy maanaam ñu jóge ci opposition bi ci yeneen camp yi ñëw di transhumé ci ñëw ci moom parce que loolu tamit dafay bokk ci agenda am mais euh, lu muy annulé nii voyage yi mooy fois bi ñun dañ koy ñaawlu. parce que ku sañoon vice président de la république ñëw fi nga xamante ne moom mooy sa région hmm. parce que président buy ñëw fenn dafa am lu bëri li nga xamante ne dafa changé déjà balaa muy ñëw hmm. taf yëngal dina am même buñ ko waree tuddee noonu taf yëngal mais di nga gis lu bëri li nga xamante ne doxaloon ci biir réew muy ci santé bi muy ci éducation muy ci leneen ku nekk ci ñoom ministre yooyu dañuy faral di ñëw ci dëkk boobu pour ñun nga xamante euh, ko ñun dañ koy ñaawla parce que dañ koy président de la république ñun soxla nañ la ci Casamance mm-hmm. parce que problème yi bëri fi yi nga xamante ay problème courant ay problème ndox ay dëkk yi nga xamante ay soixante treize villages cinquante neuf villages amuñu courant amuñu ndox mm-hmm. te ñu nekk ci biir Sénégal yow boo président bu waree ñëw foofu day nekk ñaxtu yi nga xamante ne boo leen sur la table mm-hmm. day commencé am ay début de solution mais bu jàppee te population yi dañuy nekk di préparer ñoom ñi nga xam ne ay jàmbat di préparer jàmbat yi ñi ne ñëw pour ñu actif parce que seen président la mooy président yu ñëpp wala ñoom seen chef de parti la ñun loolu yëpp bu demee bay naxasaay nii nii dafay doy waar te dañuy wax ni ñëpp ñu ngi koy xaar parce que problème bu Casamance yi kii di région Casamance problème yi bëri na ñi nga xamante ne tey jii euh, war nañ ko mën a def muy secteur de la santé muy le secteur de l'eau muy le secteur de de de le chômage des jeunes c'est donc yooyu noonu ay problème la yi nga xamante ne xëy na day pousse ba au moment opportun yi nga xamante ne commencé nañ trouver ay début de solution mu ñëw mais dañuy wax ne moom moo ñu mboole dafa warta mën a dem fii bàyyi fii ñu ngi koy xaar fi ci Casamance pour mu ñëw parce que problème yi bëri fi te war na ko mën a régler balaa muy ñëw. Mhm, ñu jeexaleeg yow Madia Diop Sané ci benn fee bi nga xam ne dëgg la sport la waaye dañoo gis ne euh, politique baa ngi ci am loxo ndax kat monde sport ñoo doon amal fête mu doon benn diwaan bi nga xam ne autorité yëpp waroon nañ fa teew seulement euh, dañoo gis ne maire diwaan ba dafa absent. lu ko waral euh, ku ci nekk joxe nga sa explication en tant que société civile ban appel ngay def justement ci mbir moom waa appel bi may def mooy dama bëgg dëgg la dëgg nañu seetaan nañu maire bi mu ne moom jotul invitation te kilifa fu ñu ko invité waru faa dem loolu ñun gëm nañ ni loolu dëgg la kilifa fu ñu ko invité waru faa mën a dem mais benn bi mooy mooy benn bi mooy. Hmm. Euh, ci kaw loolu noonu euh, dañuy wax ni ñu bu ñu sañoon coowal coowal coowal bi dañ koy dàqal hmm. que euh, parce que euh, équipe Casa bi ci ñëpp la am yaakaar. muy maire muy ñu nekk ci parti au la amal yaakaar donc bu football demee bay woote. Euh, question politique waru fee mën a dugg. Mm. te moom en tant que maire tamit war na mën a war nañ ko mën a bu fekkee defuñ ko loolu duñ ko dañ koy ñaawlu parce que moom mooy maire commune bi gis nañ ñu joxee na ñaari fukki millions pour Casa Sport mm. gis nañ ñu jurukaa joxee na cinquante millions pour Casa Sport mm. loolu yëpp muy wanee ni ñoom ñëpp xam nañu ndawu Casamance la ndawu Sénégal la mm-hmm. te ñoom seen équipe ku nekk am nga ci équipe seen équipe mooy ci biir euh, ci biir ay sphère sport bi dafay xaaw day xaaw a ñaaw trop. Mhm. di wax ni ku nekk si ñoom ndax jàpp ni am na lu lu lu gën a rëy loolu li nga xamante ne moom la ñu bokk muy Casa Sport te coow li ñu dakkal ko ñi nga xamante ne xam nañuy defuñu lu baax ñu rectifié wu et puis ñu excusé wu ki nga xamante ne moom mooy tamit maire jàpp ni man euh, invité ñu moom moo tax ñëw ma mu dakkal loolu yëpp ba jàpp ni Casa Sport mooy li nga xamante ne moom moo ñu njaboote Euh, Casa Sport mu nga li nga xam ne moom moo ñu dajale nañu jàpp ci Casa Sport jouer ci Casa Sport ko mu amaat yeneen ndam yi ñëw asalaam. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Madia Diop Sané. ma lay ma lay jaajëfal bu baax Elisa.